biñ jàpp biñ daggoon ak léegi matul un mois bi ñu jàppee taxawaay bi ak tey matul une semaine te gis nañ ne sénégalais yëpp ñëw nañ buy suñu loolu nag dañ leen di wax jërëjëf di wax état Sénégal euh, tib bu dul rees jërtë rëyal jàpp Pape njaay dugal ko ci prison tereewul Pape Ndiaye nekk ci xolu senegale yi tereewul bis dina ñëw nga génnee ko mu ñëwaat toog fii di wax lam daan wax kon loolu amul njariñ wala fi waxaat ne sànni woo xam ne boo ko sànnee day dalaat ci sa kaw nee na xooxu buy ëpp na ci te nag ku ne xam na ne ku yor nguur di not nit ñi di leen aaye wax ba dese fukki weer war ngaa yolomal sa loxo ngir xam ne bu subaa di nga soxla émission balaas yaag ñoom gaa yi nga àndal yëpp naan ay defe wuñ ko woon néeg siis bi waxuma woon lii su boobaa wal fajir rek moo leen tijjil ay microom di leen euh, wax rek réew mi dafa am fu mu tollu tolluwaay bi mu toll nag ñëpp a ngi koy gis bërki démb Pape Sané génn na fii guddi ñu topp otoom bam mu daw dugaat biir këram ñëpp gis nañ mu wax ko bërki démb gis nañ maam Birame Waaj ak Pape Makhtar Diallo oto buy liggéey ci ministère kar leen dóor leen bërki démb gis nañ daam mbóoj yor otoom ñu kar ko ca wetu kër Macky Sall di ko fetal bërki démb gis nañ Cheikh Omar Diagne waxul dara ñu wax ne poliis daf koo convoqué buñ ci doolee nag muy mustafaa jóop muy Mass Mboup ak kum mën a doon ba ci man mii lu ëpp ci say téléphone ay saagay ndey ngay jot ak ay mënaas de mort te loolu nag loolu ñu ñuy def nag muy dóor fetal yeeg saaga yeeg xas yu metti yi su ngeen ko dugalee ci biir ñoom ñi nga xam ne dañ leen a accepté ci seen biir ñuy wax ci suñu palaas nga xam ne ñun xëy na dañuy wax ca boor bee waaye am na ñeneen ñuy wax ca boor bee est-ce que ñooñu dañ ñoo ëpp ay teggin wala dañ ñoo gën a wax ci xam-xam bis bu nekk ngeen gis mbooleem ñuy waxal Macky Sall ba ci ay ministre am dañuy wax ay daggi saagay ndey di wax ay wax ju ñàkki teggin àdduna bépp di ko dégg dégg ngeen fii ministre boo xam ne xaw moom nerwi la xaw ma lum doon mu naan mu naan diw sàngam day deema dondu jabaram jàpp naa ne loolu moo gën a ñàkk teggin lépp lu ngeen dégg waaw moom nerwi la waaye nerwi la boo xam ne jabari jàmbur yi lay xool <laughs> waaw léegi nag léegi nag léegi nag li am li am mooy mooy Walfadjri moom Ablaye Waddoo Abdou Dioufoo Macky Salloo ak ku mën a doon mënoo tee Walfadjri di continuer di nekk fajiri lenn rek mooy doole Walfadjri mooy yéen ñi taxaw suñu wootee ngeen ñëw ngeen ñëw taxaw fii dinañ xam ne Walfadjri mi ngi def liggéeyam saa buñ woote woon gisuñu leen dinañ xam ne trahir nañ Sidi Lamine Niass dinañ xam ne trahir nañ ligne éditoriale bi Walfadjri nekkoon kon nag soxla siñ soxla mooy Sénégal ci jëmmi boppam malgré que nii ngeen gis ñu koy def gor ñi lu ëpp ñeenti téeméeri nit ñi ngi ci biir kaso bii ñu téye leen Ousmane Sonko ngi fii ci hôpital Clédora nga France ñoom ñépp lenn rek moo leen ko teg mooy nguur guy jaay doole nguur guy jaay doole nag daa soxla woo borom karaw yu ñuul kukk yu taxaw temm teg seen bakkan ngir seen réew damay ñaan doomi Sénégal yépp na leen dëgg jaral lépp lu mën a doon ci seen kanam Pape Ndiaye bàyyi leen ko nam gën a gaawe palaasam du kaso palaasu Pape njaay ci plateau yi la muy wax ak sénégalais yi di leen wax dëgg loolu la doon def ba ngeen jàpp ko te leer na leen na itam lii ngeen ko jàppe du dëgg te leer na mbooleem sénégalais yi taxaw fii yépp ñun loolu rek moo ñu ci ñor Pape Ndiaye du def vingt ans ci kaso bi dana génn te bu génnee kam doonoon lay doon léegi nag yéenay xool su fekkente ne mennum Pape njaay moo leen gënal Sénégalais yi taxaw fii yépp jël leen su fekkente ne bàyyi Pape njaay ñu xam ne journaliste yi ndax wolof yi mooy wax ne aw askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp waaye boo ci toroxalee kenn it toroxal nga ñëpp te lii ñu def Pape Ndiaye def ko Pape Alé Niang barki démb toroxal mbooleem journaliste yi nekk Sénégal lañ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf Cheikh Bara e, Issa